xar yi seerul li tax seerul mbir mbir bu ne boo ko jaay maanaam da ngay xam li nga ko jënde doo ko mën a jaay parce que gis ngeen rakkaal bi ngeen fi fekk xar di lekk saako bi ay seize mil lay jaar kon boo jëlee xar di ko xont maanaam ay ñaari at luy jar seize mille xam nga ne kon koo ko jaay moom day jàpp ne dafa seer waaye yow fekke seerut ci yaw waaw te fu ne la jóge ci réew mi di ñëw fii oto rek tey boo ko fi fii di ko yóbbu misira di ko fay ay cent mille nga koy fay kon nan ngay jaayee xar du yomb waaw yàlla liggéey la ci lañ ne ndànk-ndànk rek ñu jël suñu sens waaw ku nekk sa sens waaw nga xëy suba tey jaay ñaar fukki xar mun nga xëy suba jaay ñaar am na ko xëy jaayut kon ñu ngi sant yàlla waaw mbir maa ngi dox ndànk-ndànk am na fi xaru deux cent mille sax am na fi waaw am na fi deux cent quarante am na cent vingt cinq mille am na cent soixante lépp am na fi xar bu nekk nu mu toll ak pireem